tey jii aussi occasion la pour ma annoncer de manière officielle li nga xam ne nii mooy nekk suma taxawaay politique ak sama taxawaayu parti le parti ADS Papa suñu conviction ci ni senegal war a doxe suñu conviction ci ni Afrique war a doxe moo tax ñu créer biñ ko créé ñu ngi sant yàlla amul région wala département du Sénégal boo xam ne la parti amu fa représentant ba ñu juddoog léegi yàggul mais ñi ngi taxawaay ñi ngi taxaw taxawaayu parti bu am jëmm ci Sénégal c'est l'occasion Babacar ma remercier la féliciter la ci sa engagement à mes remerciement yooyu aussi Omar jàllo bi may wax léegi tëb naa ko bokk na ci ñi nga xam ne nii bu àndul woon ak ñun bi ñuy nekk à la mairie duñu jubbanti marché xombal mu jubbanti ko teg ko ci yoon te amu ci dara mbokkam amu ci dara doomam amu ci dara jabaram amu ci dara il fallait être Omar Diallo pour le faire parce que c'était très compliqué sur le plan politique ñoo ñu ma àndaloon muy Omar Diallo muy Jibi muy keneen dañ na ma Babacar ñu amuñu lu ñuy seet yow la ñu àndal koo àndal ñu ànd ak ñun le président Macky Sall depuis 2018 mi ngi may tendre la main il m'a reçu au moins une six à sept fois depuis 2018 ñuy wax ci lu jëm ci Sénégal ñu dem ba ren nag il est arrivé le moment où nous décidé dem ànd ak moom parce que réew mi dafa am fu mu toll ñun yàlla dimbil nañ ñu am expérience ci Afrique dem fu sori jaar-jaar politik ñu jaar ci fu bari dinaa faral di wax ñi may toogal ma leen man ci sant yàlla rek laa war a def parce que ci ndomba tànk politique yi ñuy fale bu dul président de la république fal nañ ma fal nañ ma conseiller municipal conseil régional conseiller départemental maire deux fois député du Sénégal député de la CEDEAO nu mu tuddati le chef de la délégation du Sénégal au parlement de la CEDEAO ma liggéeyal fa Sénégal liggéeyal fa la sous-région liggéey boo xam ne nii képp ku dem ci parlement ba boo déggee sama tur ak liggéey bi ma fa liggéey dinga ciy ci fier ndax la ma doon def dama ci doon gestu sama réew su ma amee expérience boobu yëpp gis yeneen réew yi niñ doon doxe ak li leen ci fekk duma tudd mais xool leen réew yi ñu wër amu ci benn réew bu stable li indi instabilité boobu mooy xëccoo bu tar boo xam ne waxtaan amul fu mu amee rek bu yàggee instabilité lay jur te Sénégal chance am mooy sa stabilité Sénégal chance am mooy jàmm ji fi am Sénégal chance am mooy jéego yi nga xam ne ñi ngi koy teg depuis le président sengoor ñëw ci Abdou Diouf ñëw ci Ablaye Wade di consolider ñëw ci Macky Sall di consolider ce que c'est la démocratie di consolider l'état de droit di consolider le leadership diplomatique du Sénégal loolu mooy suñu atute dara waru ko yàq bu ñu gisee ay nit ñu gisee neneen am beneen taxawaay politique yaakaar ne politique teg doole la yaakaar ne teg politique wax wax ju ñaaw la yaakaar ne politique attaqué nit la bu boobaa ñun aussi comme gisewuñu noonu dañuy am devoir taxaw pour que Sénégal du suux pour que Afrique mën a redressé wu te loolu mënul am lu dul ci jàmm loolu bokk na ci li tax ñu créer suñu parti muy parti panafricain muy parti boo xam ne solidarité ak développement lay jëmmal loolu aussi bokk nañ ñu gis président Macky Sall mu tegu ci yoonu liggéey du ma ne lépp baax na mais li ëpp ci li muy def baax na kon bu ñu wootee ñu ñëw ànd ak moom lu baax danañ ko gën a jàppale mu baaxal ko li nga xam ne yaakaar na dañ ko war a jubbanti dinañ ko jox suñu xalaat pour que loolu mu jubbanti ko leneen li nga xam ne ni aussi lu am solo te ñu war ci wax dañuy dem ci ay élections législatives ñu ngi ñaan yàlla xombal gis ci boppam mais ce qui est important du ku nekk doon député c'est pas ça qui est li am solo mooy ñu teg ci Sénégal benn assemblée boo xam ne ni dana gën fuuf législature yi nga xam ne am na fi mu gën a taxawaay taxawaay boo xam ne day jëmmal askan wi liggéeyal askan wi te ci loolu la ñuy dox ci loolu la ñuy soñc beneen bi sama jigéen ñi yéen dëkkandoo yi yéen waa koñ bi dañu ñaan yàlla te lool lañ mus a ñaan yàlla lu ñu am ñu bokk ko ak yéen loolu ci la ñu mus a nekk te loolu aussi dañuy ñaan yàlla di ci continuer te loolu lañ far yàlla far fas yéene di ci continuer kon bu ñu nekkee tey ba weeru koor jot ñu amoon habitude di ko def yoon la ñu woowaat leen waxtaan ak yéen saafoonte ak yéen balu leen àq bal leen àq jox leen seen suukaru koor leneen li aussi mooy les imams on duñ leen sant mukk sant bu doy imam nit la comme ñun am ay soxla comme ñun am ay jafe-jafe comme ñun te imam bu tardee julli ñu critiqué imam bu tardee tudd ñu critiqué imaam bu tardé takk ñu critiqué te xamuñu jafe-jafe yi imaam di am ba du mën teewe yu bari kon imaam yooyu ñu ngi leen di ñaanal di leen masaw coono mais di leen delloo njukkal day baax nag ñu leen di fàttaliku di saafonte ak ñoom am na loo xam ne nii xëy na jigéen ñi su paree dinañ xool yéen naka ngeen koy defe naka ngeen koy jële muy seen sukkaru koor leneen li nga xam ne ne ay ndimbal la ci néew di doole yi comme defal yàlla la dañ koy jox ñi fi nekkal yàlla mooy imaam yeeg jàkka yi su ko defee ñoom aussi bu ñu demee xool ruq bu ñu nekk juróom-ñaari jàkka defe naa ñoo fi nekk huit jàkka ruq bu ci nekk ña mu wër ña fa yelloo ñoom ñu jox leen